yéen kay ma Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf tali bi ak bakkan yi ci des l'observateur mi ngi ñuy xamal xibaar bu tiis juróomi doomi aadama yu bokk benn famille dëkk ca Medina Baye ñoo ñàkk seen bakkan ci l'accident ubbil yéenekaay bi ak tàkk la demoon ca Ndramé Escale bi ñuy ñibbisi watab 7 place bu ñu jëloon moom mbëkkante ak benn watab Peugeot 307 bu doon doublé ab Jakarta wàccaameen yi newoon ci 7 place bi ñett ci ñoom fa saasa la faatu ñaar ci jële woon i juróom lañu mu di chauffeur ba Momat Thiam toll ci fanweeri at ak juróom-ñett Jatu Thiam tolloon ci ñeent fukki ak ñaar Fatou Thiam fanweeri at ak ñett Awa Mbuub ak benn xale bu am at bu ñu naan Roqaya Touré jëyee joojee waral musiba mi journal bi nee nañu mi ngi xewee ci dëkk bu ñu naan Kiwi nekk ca booy dugg Kaolack ñu wax ci wax ji président Macky Sall waxaat ci mbiri góor jigéen yi ci Sénégal la ak Les Échos wax ñu ci xëtamu njëkk ne président Macky Sall mu ca waxoon journal las nañu ci week-end bi ba muy dalal ay kilifa diine ci la leen waxee ak ngóor jigéen du fi masa dagan xel xalaatu ko kàddu yooyee njiit mi waxaat ci mbirum góor jigéen ci réew mi moom la réew mi quotidien xëyee ci xëtamu njëkk mu di li fekk yàllaa ngi may def may jiite Sénégal ak ngóor jigéen du fi masa dagan dafay xaraam ti faaxan Les Échos nañu Macky Sall nee na non non et non pas de góor jigéen au Sénégal bu lijjantee coowal ngóor jigéen yi bu nuppi moom Macky Sall na wax ci coalition tous tasar mu di waa Benno Bokk Yaakaar journal nay fu bind ne ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2022 yegg guñu ci waaye tàmbali naa jax dégg nañu fa Mbaye Ndiaye keroog mu ne Amadou Ba bul samp sa ndënd naan yaa ngi doon candidat ci Géejawaay moom Seydina Fall Bougazelli samp na fam ndëndëm ba déclaré candidature nee na mairie de la ville bu Géejawaay moom la bëgg a jiite moom la bëgg a doon ki ko doon jamono ji di Aliou Sall yéenekaay bi nee nañu Seydina Fall Bougazelli sànni na ko fa ay xeer yu rëy fësal ak njàppaleem ci Lat Diop ngir ñu jële Aïda Sow Diawara ca Golf Sud L'Observateur nañu loolee ko waxee ci meeting bu mu gonte woon keroog samedi ca mu bari jigéen ñi fësoon ca lool ba tey L'Observateur jànge ci ne na wàllu politique yaa ngi wax na sax ci làmmiñu boppam ne ñi doon songu président Macky nañu waaj te xam ne ñëw naa dootuma leen mayeti dara keneen ku fas yéene maye dara ci élection locale yi la sine nañu moo di Zahra Iyane Thiam moom ministre microfinance démb ba muy inauguré siège bu APR ca Sicap Liberté fa la ne am na yéene ak bëgg-bëgg ngir jiite mairie bu Sicap waaye bala mu ciy sori dafay bàyyi ba parti bi mu bokk di APR joxe avalam journal i Mali déwén yi mu di maire bu Ndar Mary Teuw Niane mi déclaré candidature bu yàggul ne dafa bëgg a jëlee ba ci loxo yi Mansour Faye wax na ci xët mu njëkk l'Observateur ne moom Mary Teuw Niane candidat la te candidature am mbindeef mënu wax ba mu dellu ci ginnaaw mu ne askan wi ñooy xool ki leen doy ñu fal ko maire waaye du benn nit rek mooy daggee ca làng ga jóge ci àll ba di leen tànnal ki war a doon seenub maire keneen ku xaw am taxawaay bu ni mel la tribune moo di Adama Faye nee na moom àndul ci li président Macky Sall bu kenn dem ci élection locale yi bu bokkut ak bu Benno Bokk Yaakaar bi Adama Faye nee na ko monsieur le defuma ko ko nguur gu ëpp dafay rey nguur trop pouvoir tue le pouvoir te nekkuñu ci ëttu buur ba nga xam ne buur dafay taxaw joxañ ab xeejam ñëpp jug topp ci ci xët mu njëkk Les Adama Faye mel ne ku naan fa Macky Sall nga téyeeg sa bopp doxalinu dictateur wi ngay doxe dafa jaaxal ñu bari man nag Adama Faye candidat laa bu Grand Yoff su ma sama parti jàppale xëyrun su ma jàppalewul ma dem ci ak beneen liste ñàkkante ko ak yéen ñi ko doon ñàkkante daje nañu keroog samedi ji weesu cib conférence religieuse bu liggéey Parcelles Assainies gi Xadijatu Jóob Sow jiite ñoo ko organisé woon ca terrain akapes bu Parcelles Assainies fa la ñu joxantee loxo fa la Mbay Njaay waxee ne ak féewaloo xajul sama digganteeg amadu Ba xajul suñu digganteeg Moussa Si mi bàyyi yéppam ñëw ànd si ak ñun la si ne kay nañu amadu Ba ak Mbay Njaay juboo nañu joxante nañu loxo madame Xadijatu Jóob Sow ak ñi mu àndal ci réseau ànd liggéey Parcelles Assainies ñoo leen jubóole